Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi ngay secrétaire général au syndicat démocratique euh, liggéeykat yi féete ci wàllum santé waaye tamit secteur social ñu gis nag ni en conseil des ministres njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye jot naa jël ay mesures euh, jëm rek ci wàllum système de santé bi ana nan nga ko jàngatee. dañ koy rafetlu parce que ñun am na ay temps dañuy am sax même inquiétude parce que dañuy gis li nga xam ni mooy plan yi ñu def wala programme yi nga xam ni jox ko ñu dundoon ci biir domaine de priorité yooyu dañ ci gis ni euh, amoon na presque juróom-benn mais gisuñu benn yoon ñu tudd ci santé ñu tuddaloon ñu ñëpp nag mais man ma disee que ni xëñ na lu nu waxul lépp ay ci jëf dinañ ko def mais gis nañ ni tëj na depuis boobu tey aussi ñu ngi du xool gisuñu ci lenn ba euh, vraiment tey waxoon nañ ci diagnostic wax li nga xam ne mooy jafe-jafe yi ak problème yi nga xam ne moo nekk parce que tey jii boo ne boo nee hôpital hôpital bu njëkk dañ toog rek euh, nit ñi ñëw di faju mu am ay comité de santé mais ñu ne hôpital léegi entreprise la ne day def réforme mais 1998 ba léegi gis nañ ni réforme amul changement parce que ña fa nekkoon doon def réforme ñoom ñoo fa nekk ba tey jii nii buñ fi nekkul it am na ñu à distance nan la ñuy piloté mbir parce que ñoom ñoo fi nekk ba tey loolu mooy mbir parce que ñooñu bañ koy def am nañu ci bëri ñoo xam ne xëj na bu poste bi nekkoon en compétition wala ñu définir profil xëy na duñ ko mën a jiite moo tax ba ñuy bind danoo bind rek te ay sur mesure loo xam ne ñoom mën nañ koo sol te mu mën leen jot dina jot aussi seen i nit moo taxul ñu ne pour nga nekk directeur hôpital wala nga jiite hôpital na nga am rek lu toll ci diplôme bac plus 4 loolu alors ko ñun ci ay doomu aadama la ñuy la ñuy faj ñaareel bi aussi dañu nekk ci loo xam ne dafa am ay outils de gestion yoo xam ne bokkul ak ñeneen mu nekk loo xam ni aussi euh, bu ñu ko soxlaa il faut que ñun ñu mën a am benn benn benn orthodoxie bu nu mën a def ci gouvernance boobu ci choix wu am yi ñu gis ni biñ ko defee ñu ci bëri euh, mu ngi mel ni rek tey jii nga ni tey damay damay damay mën naa jël benn benn benn médecin wala benn cadre infirmier ma ne ko dama koy nommé censeur wala proviseur ci benn lycée loolu mënul nekk loolu même bu ko enseignant yi sax mënul nekk dem gis ngeen administration territoriale changé nañu ay gouverneur changé nañu ay préfet mais boo gisee préfet bu nu changé administrateur civil moo ko remplacé parce que pourtant ñooñu seen i njàng peut être bac plus cinq la wala peut être bac plus six mais am na ñoo xam ne def nañ ci bac plus douze même bac plus mais ñooñu jëluñu parce que loolu loolu loo tax moo tax santé bi ñuy nommé ay politiciens bu ñu jiitee seen i mbokk politiciens lañ leen indi lu ñëw tegal leen foofu bu leen fa tegalee teex ci boppam parce que ñooñu dañ naan rek xam nañ bac plus 4 ah te te te xamuñu mosuñu dugg hôpital mosuñu faj loolu dafay poser problème ñu gis ni aussi autorités yu bees yi bu ñu ñëwee dafa am loo xam ne aussi ñun dañ ko doon xeex bi Abdoulaye nekkee fii xeex ko bi fi Macky Sall nekkee mooy ñu fexe ba képp koo xam ne yaa ngi jiite ci santé mu am lu nu définir muy profile de poste bi ba nga xam ne yow mi koo jiitee dinañ xam ne dangaa am compétence ak profil bi te nekk nga koo xam ne ci secteur bi la nekk te bu fekkoon ni sax amul corps boo xam ni existé na ñu mën a wax tey ji am na corps boo xam ne mi ngi ci biir décret deux mille dix huit mille quatre cent trente bi statut particulier du cadre des fonctionnaires de la santé bi nga xam ni moom moo modifié décret 77 887 bi nga xam ni mooy même euh, mooy statut particulier bi ñu leen doon wax léegi de la santé de l'action sociale mais ñooñu non seulement ñi ko def nekk nañ ñu nekkoon kër docteur yàgg ci mais dem defi seen formation am seen lijaasa mais bu fekkee ñooñu ñëpp ña fa jóge dañ leen a leen te dañ leen a teg à côté te ñooñu bi ñuy def concours boobu concours africain la woon du que école boobu du école du am na lijaasa yoo xam ne tey jii boo demee ba Europe dañ koy nangu nga ñëw ñooñu nga def leen sur la touche nga ñëw bi ngeen ñëwee ba tey ñi ngeen nommé ñëpp ci laal ci ban base ngeen leen nomee mooy loolu ñu wax ni hiérarchie A kese la leen nommé pourtant ñeneen ñi hiérarchie A lan nekk mais dañ ni ñooñu ñoo def bac plus douze mais bu fekkee da ngaa def bac plus douze te yow ba ngay jàng danu la jàngal nga ni chirurgien dentiste ñu baal ma nag je n'ai rien contre eux wala ñu ne la yow bi ñu lay jàngal yow tu es un docteur en soins infirmiers donc base bi nga jàng yow ci loolu nga dekk wala ci santé communautaire nga jàng wala santé publique mais loolu loolu ngay exercer te jàng loolu la ci mbirum gestion léegi nag bu fekkee dañu bëgg jël hôpitaux yi wala ñu jël direction régionale de la santé yépp ñu ne ñoo ñoo koy cité parce que boo nee direction régionale de la santé ka ko war a jiite dafay am notion aussi bien en santé publique mais dafay am notion hospitalière mais mënoo gis koo xam ne bu weesoo juróom-ñetti at yi mu jàng nga xam ne nekk na étudiant dem ci hôpital ba mu fa génnee ñu nomee ko ba tey tegul tànkam hôpital nga ni ko kooku moom moo war a superviser la politique hospitalière d'une région boo xam ni mu ngi mel ni euh, Matam wala wala Ziguinchor wala feneen day nekk ay jafe-jafe. wàllum carte sanitaire tamit bëgg na ñu taxaw ci. waaw carte sanitaire dafa am lu ko lu ko lu koy lal xam nga du loo xam ne da koy décréter carte sanitaire dafa am lu ko déterminer dara population bi nga xam ni moom lañ desservir xam nga tey jii boo xoolee population Dakar bokkul ak population bi nga xam ne mooy région de Kédougou tolloowuñu sax tey jii mën nga bopp loolu premier élément ñaareelu élément aussi li ko war a définir mooy ñu xam lan mooy feebar yi nga xam ne tey jii ñoo gën a sonal population yooyu loolu lu am solo la parce que tey jii am na zone yoo xam ne li leen gën a sonal mooy mortalité maternelle ak infantile maanaam xale yi nga xam ne balaa ñuy am cinq ans di faatu am na ñoo xam ne jigéen ñu wérul yuy faatu mais am na yoo xam ne ay maladi maladies endémiques ñoo leen sonal lu mel ni ay bilharziose lu mel ni ay onchocercose tey jii gis loo ko Dakar mais mën nga gis ay région de Kédougou wala ay région de Sédhiou euh, euh, bilharziose urinaire di nga gis ay côté Richard Toll parce que peut être ndox mi def defe noonu ñaareel bi aussi li nga xam ne mooy population bu na ma toll ak la mu desservir war nga ko mën a calculer ba xam fii population temps la ñaata case de moo fi war nga xam population ba mu toll ñeneen ñi nga ne ah fii de war na am poste de santé te war na am infirmier war na am sage fii war na am centre de santé mais booy xool carte carte sanitaire bi demul ko noonu tey jii da ngay xool dañuy am financement rek ñu xool ci ay région politique def nañ ko Tivaouane def nañ ko Touba néew ma foofu waruñu am hôpital mais tamit noo ñëw biir Touba nga gis ne hôpital Matlaboul Fawzeyni dafa am sooxe sooxe nga gis ndaamaatu aussi dafa am jafe-jafe nga war a jël hôpital boobu ku nekk nga ne ko naa la renforcer pour un milliard de subvention pendant quatre ans en définissant benn projet d'établissement boo xam ne dama koy dama koy contrôler ma ne damay beneen hôpital bu bees ñu ñëw Tiwaawan ku nekk gis na li xewoon hôpital Mame Abdou bi naan euh, ay ay ay produits chinois lan def ci ci kii bi ba ba ba ba couveuse yooyu tàkk ba am ay bébé yu fa dee mais tey jii boo renforcer woon hôpital boobu jox ko ay moyens conséquents ñu xoolaat ci def mais yaa ngi construire beneen hôpital boo xam ne yow hôpital Mame Abdou personnel ba fa nekk sax doyul nga dem Ourossogui hôpital Matam nekk fa hôpital Ourossogui nekk fa diggante hôpital tam ak Ourossogui dix kilomètres moo leen séparé loolu mooy même cas hôpital régional bu Ziguinchor ak hôpital de la Paix waaye ñu hôpitaux yooyu doxul nga war a ñëw mën leen renforcer yokk seen subvention yokkoo seen subvention ñu nekk ci ay jafe-jafe amuñu personnel amuñu lenn nga ëlbatiku yow dem nga ni dangay ngay beneen beneen hôpital à Ourossogui te avant ñu construire hôpital à Ourossogui dañ dem ci benn dëkku politicien Agnam la xaw ma la tudd di dem construire benn hôpital alors que booy référé Ourossogui ngay référé Abdoulaye Wade defoon na ko madame Viviane dem euh, Néné Ficha tabax fa alors que centre de santé ku fonctionné wul woon correctement yooyu lan war a bàyyi te loolu lu koy indi mooy politique politicienne bi ñuy def te gis nga lii xew nii fan yi aussi a rien contre mais dañ ni nañu mettre poste yi en compétition ñu définir profil ak mission loolu boo ko defee bu dee commissariat de police la nga def commissaire boo xam ne xam na xam na luy sécurité dina ko def te du am njuumte ñun loolu la ñuy laaj il s'agit pas de poser des diagnostics pour que après benn corps bu nga taxaw ni moom moom moom système bi ñoom ñooy jiite ñëpp te benn argument rek la am mooy ñun def nañ bac plus 12 damay rappeler nag kadib ku ci def bac plus 12 c' parce que te la ngay jàng la moo laaj nombre d'années woowu tey jii boo demee ENDSS ña fay jaar bac la ñuy am te bac scientifique la te dañuy def concours à la faculté de médecine boo fay dugg bac nga fay dugg te doo def concours te yéen a jàngandoo lycée sixième ba terminal yéen a amandoo bac donc nit ñi indi leen def mais ñenn ñoo def choix def benn formation ñenn ñoo def choix te mu bac plus huit du ci kenn corps kese la infirmier bi sax day am doctorat am parce que am na plus système yeneen corps yëpp am nañ ko mais su fekkee dañu bëgg a jël système bi jox ko benn corps kese bu ñu sàgganu nit ñi dinañ croiser les bras bu boobaa duñu am résultat gis naa le président de la république ci discours am la nation bi ñu ko doon posé question euh, temps yële ak journaliste yi ñu ne ko lan mu wax problème mu uniquement spécialité mais man ni avant ngay ñëw ci spécialiste dafay fekk li nga xam ne mooy soin de base nga réglé ko soin de base boobu ñen ñoo koy réglé ñen ñoo fexe ba xale yi amuñu coqueluche amuñu diphtérie amuñu tétanos amuñu poliomyélite mooy ñi nga xam ni infirmiers yi ñoo fa nekk ak sage-femme yi mais ñooñu tey jii presque plus de 60 pour cent dañ leen di contractualiser gis ngeen waa programme euh, NFM 3 euh, bi nekk bi nekk bi nekk bi nekk dans le nord ñu xëy benn jour arrêté seen contrat alors que ñenn ñi ay chef de poste la woon ñenn ñi nekkoon ci yenn structure loolu aussi dafay indi jafe-jafe donc il faut que ñu ñu xam ne système mënoo dugg ci bloc chirurgien bi ñëw ni day opérer moom donc mënul nekk il faut que mu am anesthésiste réanimateur bu fa nekk il n'est pas forcément un médecin il faut que mu am instrumentiste il n'est pas forcément un médecin malade bi buñ ko opéré bu génnee bloc opératoire salle de réveil lay dem ña ñoo koy gérer c'est pas celui qui l'a opéré bu demee dans les salles de soins ña koy gérer ne sont pas du même corps te du ñoom doo nga nekk système bi am na ñoo xam ne ñi ngi ci rajo ñoo ñooy permettre yow nga génne say ay technicien en rajo la ñoo lay defal cliché pour nga mën a interpréter ndax kii damm na wala kii ban feebar ko jot am na ñu nekk biir laboratoire de biologie ñoom ñooy def analyse yi ba wax la ban microbe moo ci nekk ñooñu ne sont forcément des médecins mais boo ñëwee rek nga ni benn koor ci nekk dafay indi jafe-jafe te loolu autorité yi nañ ci toogaat te ñi ñi nga xam ne ñoo koy prôné di ko def temps yi rendre service rendre service ku ci bëgg nag na nga dem jàngi comme ñeneen ñi dem def ci formation et ne pas chercher des raccourcis tout simplement après di influencer ay nit. Cheikh Seck jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay secrétaire généralu syndicat démocratique liggéeykat yi féete ci wàllum santé waaye tamit secteur social ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.